Samsung de fait décider gën le colo comme ni koy woowee ak euh, Jili tey ñu ubbil ko suñu boutique bu ñuy brand Shop manam boutique bo xamné ne dañ fi jaay 100 Samsung suñ fi jaay 100 Samsung nak ñu ngi jaay fi lépp lu walum téléphone ak lépp lu walum électroménager tey nag dañoo décider ñëw ci boutique bi def si suñu dernière technologie maanaam nit ku fi ñëw dina mun gis dernier téléphone yu ñu lancé si marché bi dina mun gis dernier réfrigérateur yi dernière technologie ci téléviseurs yi te même ci euh, climatisation ak yu euh, ñuy woowee machine à laver maanaam Samsung lépp lu muy defar si lu gën a baax ak lu mucc ayu comme ni nga koy waxee soo leen ñëwee ci euh, boutique Jili 16B bi bu mu defar ak Samsung incha allah dinañ ko fi gis. donc euh, ñoo ngi remercier encore ñëpp si seen euh, taxawaay gis nañ Jili lu mu def si liggéey bi loolu moo tax tey Samsung tamit jàppale ko. parce que dafa ñëw ak benn maanaam lu ñuy woowee du mu ko woowee rêve sax mais dafa ñëw ak benn ambition ak benn esprit ñëw waxtaan ci ak Samsung Samsung décidé jàppale ko ci ambition boobu tey nag comme ni mu ko waxee euh, travaux yi metti woon na trop parce que jamono ji tamit dafa xaw a comme ni ñu koy waxee xaw na yëngatu tuuti wante tey toll na niveau boo xam ne foog naa ni képp ku nekk Samsung ak képp ku nekk CSB tey ñoo ngi ne alhamdulilah te incha allah xalaat nañ ni tey boutique bi dina mun représenter lépp lu Samsung di xalaat ci euh, partenariat ak lépp lu Samsung di xalaat ci euh, nan lañ ko mën a waxee ci jaay euh, technologie bu bees donc ñoo ngi xaar suñu client yëpp ci boutique Jili bi te xam naa ni Jili moom suñu ñëwee fii dina leen nan lañ koy waxtee dina leen teral ci boutique bi te dina leen mun jox lépp incha allah lu ñu bëgg ci technologie ak Samsung. di remercier tamit Samsung mi nga xam tey tey ñoo def lii tey parce que lépp mën naa ni ñoom la. commencé ko ci président Moussa Youn ba ba ci Moussa jëng bi nga xam te ni moom mooy MD bi nekk nekk directeur général bi fii Sénégal de remercier bu baax ndax gis naa niñ may jàppee gis naa niñ may taxawoo gis naa niñ may jàppale saa su ne parce que lii nii ko la ko defal rek sas na la sas boobu nag lay ñaan yàlla mu may ma doole ba liñ doon séntu yëpp ñu am ci lu ko ëpp loolu lay ñaan su ma jógee Samsung aussi may remercier toute l'équipe de CSB xam nga commencé ko ci bopp bi ba ci suuf bàyyiwuma kenn parce que lépp ñoom la parce que man mënaluma sama bopp dara xam nga xëy na jili CSB la nit ñi xam moo siiw mais dafa am équipe bu am doole bu ne sama ginnaaw boo xam ni lépp ñoo koy def man maa nekk affiché wu ci kanam rek mais liggéey bi yëpp ñoo koy def kon ñoom fi bi egg si tey ñoom ñoo ko fa yóbbu fii nag boutique la bu nekk fii cité kër góor gi dëgg la ñun ñëpp téléphone lañ nit ñi xamee woon moo tax bi yoon ñu dugg ci électroménager bi xam ma pour gën a waaw yokk affaire yi ñaan yàlla nag nit ñi xamee woon si téléphone yi nit ñi gën ñu xamee noonu ci électroménager bi ba lépp lu ñu def si téléphone yi ñëw def ko ci électroménager bi ay xale lañ te gëm nañ ko te gëm naa ni mën nañ ko di ñaan yàlla suñu borom dooleel ñu ba lépp luñ ciy séntu rek suñu borom defal ñu si lu ko jiitu. waa liggéey bi fi ma ko bëgg a yóbbu mooy fi ñëpp di xaar fi ñëpp di xaar. parce que man dem naa ba sama tour dafa lié ak Samsung waaw deug la mako deug la luma ma liggéey la mais ñoom tamit japp nañ ci bu baax waaw dafa dem ba sama tour bo ne jili CSB ñepp Samsung lañ xalat parce que liggéey bu yàgg bu yàgg yalla dog ñu ñaan ko and diko def ba li yépp am tay te gëm naa ni day day wessu fi bu yalla may katan ak fekkee fini boy xol travaux yi duré na presque plus de 4 mois te 4 mois yoy yépp dañ doon fay location li war yépp ñu ko doon def ak ki nga xam te ci ni mom mo mom lieu bi mais lépp rek ci ndimbalu Samsung lañ ko doon defee ba tax na wax dëgg yàlla diisul woon lool ci ñoom parce que saa su ne rek Samsung mi ngi suñu wet mi ñuy jàppale te lépp lu ma mës a bëgg su ma ñëwee gis MD lépp daf ma koy daf ma koy yombalal su ma jaaree ci Alassane wax ko lii laa bëgg mu ne ñem ci MD suñu demee lépp daf ma koy yombalal moo tax seen dimbal daal tax na lépp lu waroon a métti daal mujjee na mujjee na yomb